Vote! 말 ñu sant rek mu ngi jot leen nuyoo mbooloo mépp ak seeni siyaar jiite ko ci sëñ Saliou Sall nga xam ne mooy jiite doom yi mm-hmm. ak sëñ Abdou Ndiaye mii mm-hmm. nee ñu ngi leen ñu ngi lay siyaare bu baax mm-hmm. te di dolli ak cant bu baax a baax tey ñaan saa borom yàggal leen fi te wéral leen li ngeen yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu ngeen matal ko te def ci lu kawe seen njort nee na yëg nañ ñaan yi bu baax a baax ndax liggéey bi ko tàmbalee léegi ay yokk rek lañ ciy gis nee daal moom ñu ngi sant bu baax a baax a baax nee na moo ñoo soxna yi ñoo ànd liggéey bi di booloo ci liggéey yi sëriñ bi digle yëpp mm-hmm. loole bu jaaree ci ñoom moom ñoom ñooy ñoo koy ànd mm-hmm. nee na daal ñu ngi sant bu baax te yeesalaat mm-hmm. seen njëbbal bu yeesalaat seen diggante ak sëriñ bi ak kóllëre gi seen diggante ak ñoom nee na daal moom jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo ñu yow seen xol sedd na ci guy yi te xam na nañu lool rek mooy li leen di jariñ itam ñu ñaa ñaanal leen saa borom dolli xéewal yi te dolli leen wér ñoom ba li leene liggéeyal ci sëriñ bi ñu liggéey ko liggéey bu kawé ñott ci and ko yow waaw waxoon nañ leen ko jott li moy àttee ji léegi nag dafa juroomi fukki koros la ak ñett moom lañ daay bi loolu daal moo doonoon kàddu yi sëñ ñu ngi lay nuyu bu baax tay ziar di di la ñaanal bu baax nag mm-hmm. yal na la fi yàlla bàyyi mm-hmm. yal na la yàlla sàmm mm-hmm. yal na la yàlla aar ci barkeb Serigne dañu dañuy rek de siyaar bi turu siyaar la waaye bu doon jëf la day mel ni jëf la joo xam kenn mën na ko yanu ngiru néew waaye dañoo dañoo ñëw rek ngir siyaar si la ñëpp ci mi tamit dañuy bëgg a ñëw jàkkaarloog yow gis gi daal da di itteel te daa mel ni jataay bii moom day gën a yomb ci ñoom moo tax mbooloo bari woon ni nañ ñëw jàkkaarloog yow la ñaan di la ñaanal tamit yàlla sunop sunop sag ngeen de sunop sag ngeen lu duñ denc di ko wax ndax li ngeen ni ngeen wara doxé rek ngeen di doxé xana kañ lo ci laatu ci ñun ñun ñu top seen ginaaw la way yeen mom wax deug yalla leen war rek ngeen di def ci jëf ak ci yam ak ci lu deug yalla de ko ko koy natt jamono ju nek ci wa jamono wala xet wu nek ci seeni maas danañ ni ngeen di doxé rek mooy doxinu serigne bi ndax ku nek ña masel tànn tànneef nga ci loolu nag sant nañ leen ci bu baax te di leen ñaan te gën a jaayante topp seen ginnaaw ci seenu bëgg ak seenu bañ dëgg yàlla sunu sunu sag ngeen de sunu sag ngeen lool lool lool gisee gi yéen rek dañuy yokk lool lool lool tey xam nañ ni bari na sax loo xam ni mm-hmm. sëñ bi ngeen ñuy xooloo tax ngeen nangul ñu ko waaye ko xam seenu doxin rek xam ne wenn doxin la <coughs> ñii nag mooy mooy soxna yi ñu àndal mm-hmm. ñii tamit eh, ñoo ñoo ñoo bokkoon nekk mm-hmm. ci daara ji mm-hmm. ñeneen ji ay soppe lañ yoo xam ni ñu nag ñoom rek ñoo bokk bëgg-bëgg waaye daal sëñ bi rek ñu itteel de sëñ bi rek ñu itteel te ñu lay ñaanal bu baax di ñaanal tamit suñu way jur wa ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu way jur mi ngi may yónnee ay nuyu ak siyaar ci yow moom dañ ñun ñëpp rek lu waay lu waay am ci itte buñ ko dégloo ba noppi rek lu mu leen jàpp lu mu leen digal ngeen jàpp loola. xanaa am mbégte sant dañ ko jëme moom ñoo ñoo ci bokk yam rek loolu nga xam ci yéen ngeen bëgg àgg ci jëf man ñu ci ñu yéen ci toll rek na ko mën jàpp ci bëgg àgg fépp suñu borom yóbbu yàlla bokk ci jëf yi suñ asalaamaaleykum mbokki taalibe yi sëriñ bi néna na mi ngi leen di nuyu kenn ko nekk ci touram ak cantam té di jital ak sant it ci seen digënté ak mom ndax néna na né na ak bëgg a lok mom la rek momit it bobé ngeen ci am bu ko raw la am seen digënté ak yeen ndax xol leen loolu bi néna na jëf jëy yeen mëno ngeen ko jël yobul ko seen bop ndax yeen ak mom rek yeen ak bokku àtte ca daara ya ndax seen daara la kon mënoon ngeen ko yow waaye nag ittewoo gi ngeen ittewoo gise gi ak moom nee na noonu la ko ittewoo ak yéen itam mi ngi leen ci sant bu baax a baax nee na mi ngi ñaanit addee yii ngeen indi saa borom di ko ful ba ngeen gën koo man kenn ku nekk foo foo bëgg a egg ci sa jëf ci sëriñ bi saa borom eggalale fa kawe njot ca loolee te it ginnaaw bu bu bu jëf jooye ñëwee ñoom ñii ñu fekk leen fii nag di liggéey ànd ak ñoom liggéeyu sëriñ bi ñoomit ñu jëf ci téeméeri at yu teg dañ ñoom neena xolam sedd na bu baax baax mi ngi leen di sante mi ngi leen di gëreem kenn ku ne fa nga toll nak man nga tàllal say loxo lo sax lo bëgg nga fas ko ci ñaan gi tay neena rafet nañ jot ci lool sa borom defal ñu assalamu alaykum wa rahmatullah fi nak ci lañuy ñuy ñaan yi waaw genn ñaan lañ koy def fii nag yëpp bu baax a baax ah, xanaa xanaa bala bala muy ñaan daal ñu ngi leen di xamal ni moom moom mii ndax amaana keneen gis fenn ni ñu xam ne ñaan ñaanul ci kenn dara laajul kenn yalwaanut kenn li ko way juróom wa bàyyee woon ci la nekk ku ñu gis ñu ànd ak moom photo ak leneen tam nañu xam ne rafliwut dara ñaanut dara dañ koy siyaar si rek te dañoo war nag dañoo war ci ñu koy siyaar war nañu ñu koy jokk ndax kóllëre gi ñu seq ak way juróom bu dul woon loolu tamit moom mii kat ni muy doxee ku ku doxe doxee lu ñuy amee ci maksu mawrus am na lu ko ëpp ci maksub bu ko defee rek ñu bàyyi ci xel ndax damay bañ keneen gis ñu rek ba mel ni dañoo ñëw ngir mu lott ci dara ñu koy defal dañoo xam ne daal dañoo war ci sunub sëriñ rek ñu di ko siyaar looloo ñu booleeg moom kon nag ku nekk fas li nga bëgg tàllal ko loxo yi mu ñaanal ñu yàlla na ko yàlla na la fi yàlla bàyyi nag te leen te aar loolu moom suñu itte dëgg la